Lamine ñu amaat fi keneen beneen champion boo xam ne kenn dootu ko présenté biir Thiès muy Amdy Nogoy Amdy Nogoy ñu lay laaj nan ngay waajalee seen mbër tey ci làmb tey bi waaw bisimilah waaw asalaamaaleykum sa ginnaaw min sant yàlla jël sion bi sant suñu waajur di sant suñu sëriñ suñu baal faal suñu am nawa faal di sant waa Karos waa Sénégal yëpp di nuyu monde entier di wax ne waaj nañ leen war a waaj entraîné na war a entraîné def nañ war a lan war a def lépp li ñu des mooy loxo yàlla moo ci yàlla moo ci des ñu koy ñaan yàlla suñu borom ma ñu ndam ñu seetlu guy dëgg te am nañ ci yaakaar te wax dëgg yàlla liggéey lu tax lu loo xam ne lu war a mën a may ndam la te liggéey nañ tamit loo xam ne lu dal suñu xel la parce que ku xool ko instant bi nii xam ne instant bi mi te am nañ ni barke alxuraan dañuy dem jël moom indi ko barke yeneen dugub mais yéen domicile ngeen di bëree ba heure bi génn góole lan moo waral loolu. non ñun moom pratiquement lii yor suñu diggante la quoi. parce que ngi naan Diène Kaïré dugg na. non ak papaam bu ñëwee sax dugg stade bi midi teewul nit moom dañ koy jëli. te na ko loo xam ne dañu dem tegal Louga nii ñu dem jëli ili yàlla min tiim xam na ko. maa ngi lay jox rendez-vous man taxaw ci sorti bi jël si lu barke yoon diw daan doy bi jaay nit mais lan nga wax waa Lutte TV waaw waa Lutte TV dina wax rek boo la boo xam ne dañ koy seetaan saa su nekk xam nga di ci abonné abonné ci tamit di ci bay suñu waar bu baax ndax gars yi li ñuy liggéey wax du yàlla ñaar yoon la loo wax Lamine wax Lamine mu ñëw waaw Lamine Lamine moom xaw rek Lamine moom la wax gars la li wax tamit maa ngi wax bu benn rendez-vous rek ñu am benn émission man ak moom ndax Lutte TV sama télé la te dama ci abonné te chaque instant du dugal foofu lay yem di leen ñaanal yàlla def mu nekk ay télé yu kawe kawe kawe ci barke Seydina Mohamed di ñaanal sama mag sama xarit sama roi des arènes Mouranta yàlla may ko ndam lu sedd guy te gaaw ci barke Seydina Mohamed di leen jaajëfal bu baax waa Ligue merci am na merci Modou Anta ak Dieng Kaïré tey la ñuy bëre waa lamb ji lamb ji lamb ji lamb ji lamb ji ku ci war a daan yàlla xam na ko loolu doy na may fen du ma fenn kii mooy daan kii mooy daanu Biti Wara daan yàlla xam na ko lamb ji diggante Modou Anta Dieng Kaïré Biti daan yàlla xam na ko Biti daan yàlla xam na ko bu ci Jangan nak aku, jangan nak aku.